mbokk yi asalaamaaleykum très heureux de vous retrouver avec euh, avec le sourire bien sûr parce que certes fatigué on revient de Touba euh, quatre jours dans la ville sainte Magal de Touba oblige mais heureux parce que euh, Magal bi jaar na si yoon parce que dañ décidé prolonger safar bi aussi euh, fas yéene si toog ak koo xam ni que ni tey euh, bu ngeen xoolee plateau bi xam ni c'est sa marque. Euh, Ndiassé Cissé jëwriñ lañuy ñuy ëpp lañ koy di woowee créateur de mode parti donc euh, de Dakar le centre culturel Blaise Senghor euh, am benn spiritualité bu muy di dundu ñu nekkoon ak moom Touba naka barki démb tey mu ñëw solal soxna Fabienne defar ma <laughs> aussi alors ñu nekk toujours donc dans dans cette ferveur du magal de de Touba ñu koy di remercier xam naa ni. li muy li muy bañ tey faw ñu def ko wax leneen lu bokkul ak li nga xam ne que ni moom lay dund au quotidien euh, à savoir ce côté mode là bi nga xam ne moom lay exporté sur euh, l'international bu ngeen xoolee tey nu ñu soloo d'habitude on ne s'habille pas comme ça mais euh, tey on est très très heureux de porter sa marque parce que nag loxo bi am na leneen loo xam ne que ni moom lay traduire par rapport à ce qu'il vit Euh, kon bi ñu leen gërëmee si ni ngeen ñuy toppee samedi bu nekk ci biir c'est-à-dire euh, ñu jox kàddu gi soxna Fabienne tey c'est pas trop la grande forme mais que moom euh, nitu bés la bu waxtu ba jotee dana ko def lu ko si fekk après bu fekk si. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm benn vraiment di la ndokkale ci vraiment liggéey bu rafet bi nga def ak équipe 2STV di nuyu. Euh, téléspectateurs yu ñuy yu ñuy seetaan mooy li ngay wax rek kon ñun quand le devoir nous appelle rek on est là-bas bon ben dama am angine xam naa moo tax euh, tey du ma mën a nekk torop en forme mais comme li nga waxee rek euh, liggéey liggéey la soo mënee dox rek ñëwal nga def sa devoir am na solo et puis tamit dañu tàmm téléspectateurs yi chaque samedi ñu ñuy xaar mm-hmm. donc amuñu droit faillir à notre mission moo tax ñu nekk fii ñaan yàlla yàlla jàppale ñu ba pare du nuyu. Euh, njaase bu baax a baax. Euh, ci euh, générosité bi mu am noonu solul ñu. mais nekk baay Fall la ku wax Baye Fall wax générosité donc ñu ngi kontaan torop si li nga nekk ñëw fii si plateau bi pour waxtaan ak ñun ci lu bari. mais ma bëggoon balaa ñuy sore jaare la génn àdduna doomu al maître al Badra ñu koy jaale moom si boppam un bon euh, li ko dal métti na trop à la fleur de ah. l'âge vingt quatre ans ah. boo amee doom mu génn si àdduna daf même loo dëgër dëgër am na moment boo xam ne boo wéetee euh, foog sensibilité bi génn nga xam ni parce que ñàkk doom moom kenn ku nekk bu doon sa sago sa doom moo lay denc mais pas yow nga denc ko et puis euh, maître euh, Boubacar moo tax ba ma la yónnee noonu message mm-hmm. ne la vraiment maa ngi jóge Touba di dem parce que c'est un vrai père de famille moom bëggul ay doomam kese mais ñëpp la bëgg ñuy xalaat ci moment yi ne metti na comme ci di ku doon sago nga suul sa doom euh, suul sa sa bopp sa doom suul la waaye doo suul sa doom waaye nag li yàlla li yàlla tudd kenn mënu ci dara et puis nga gis bravoure bi nekk ci moom moom la inculqué ay doomam hmm. xale bu yaru la woon xale boo xamante ne euh, bëggoon na liggéeyal euh, liggéey bëggoon na liggéeyal Sénégal ba pare liggéeyalu aussi fi mu nekkoon ndax foofu la juddu. Mhm. ah ñu ñaan yàlla rek yàlla xaare ko àjjana ba pare dëgëral aussi yaayam ak famille et surtout son papa ça doit pas être évident man maa ngi doon ne franchement tey waroon naa jël dagg billet dem fekki ko foofu noonu fekkee levée du corps bi ba pare maa ngi woo waa diaspora bi yëpp aussi. Euh, ñu dem fekkee levée du corps bi foofu jàppale euh, euh, maître Cissé parce que c'est quelqu'un qui a toujours été avec un son franc-parler qui a toujours été du côté du peuple et c'est le moment de lui montrer toute leur affection ak leur soutien am na solo jërëjëf Fabienne donc maa ngi leen ko doon wax mesdames et messieurs tey suñu invité moom moo ñu solal Ndiass ñi ko xam bu baax gën ko xam si jëwriñ euh, bëggu ko mais man puisque fi ma toog moom mënu ma fa jox ndigal bu may def tey moom naa teggi yoon wi wàcc ko euh, bu fekkente ni que ni c'est c'est c'est tenu euh, qui sont très prisés à travers le monde vous intéresse di ngeen ko mën a joindre si 78 437. 43 77. parce que nag dem nañu fu bari Sénégal émission jot def ak ñoom. Euh, nit ñi di rafetlu li nga xam ni que ni moom mooy euh, xalaatam mais du ñu woon gis beneen facette bi euh, parce que toujours même genre bi njaxas bi lay lay lay génne affaire yu doy waar mustu nangu wax mais ñi nga xam ni que ni daal cette culture sénégalaise intéressé leen mën nañu joindre donc jëwriñ Dia Cissé au 78 437 43 77 ceci dit ñu lay dalal Ndiassé di la remercier mbégte la chaque fois ñu toog ak yow war a waxtaan si lu jëm ci euh, yoonu murit bon alhamdulilah aousubillahi min asheytaani bismillahi rahmaani rahim allahuma salli àlla seydina muhammad wa sallim jërëjëfe sëriñ Touba jaarama Cheikh barke Cheikh Moussa Touré sunu sëriñ sunu wasila maa leen di nuyu di leen sant di leen gërëm mm-hmm. di nuyu téléspectateurs yëpp di nuyu aussi sama daara Maslakul Xuda particulièrement jëwrin Cuun ñu ngi ziar ñëpp day gërëm ñëpp day sant ñëpp ko di fas yéene rek lépp loo xamante ni dinañ ko fi génnee rek mu nekk loo xam njëriñ lay doon luy indi yokkute jërëjëf euh, euh, alors euh, Ndiasse tey bu ñuy wax yoonu murid dafa am neen ñuy di xoolee Baye Fall yi jëme ko si jëmm boobu di maam Cheikh Ibrahima Fall. Mhm. ñu bëri jàpp nii dafa nekkoon ak euh, borom Touba rek bu amee lu mu soxla pour ñu liggéeyal ko ko moom mu defal ko. Mhm. ñi xam dañ naan dafa am martawu boppam balaa muy egsi mhm. si Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu est-ce que euh, mën nga ñu tegal si lu gàtt maam Cheikh Ibrahima Fall mooy nekk na mbindeef boo xamante ni man xeeb naa sama bopp lool pour xam ko mais dañ ci jéem a jàllale li nga xamante ni moom lañ ci xam ci wàllu documentation bu original bu authentique boo xamante ni euh, jox nañ ko. Mm. te mu nekk loo xam lu wóor la lu vérifiable parce que benn yàgg nañ dégg ni maam Cheikh Rafal seet na Serigne Touba fu nekk mm. mais namm na ko namm na ko di ko seet. mais dafa mel ni nit ki mënul namm lu mu xamul wala nit ki mënul namm lu mu gisul lay loolu rek tegtal la woon dëdd sëriñ bi mu mujj tarbiyu Moodu Bamba lu tuddoon Bamba Sylla mu nekk fa di liggéeyal sëriñ bi parce que moom ba muy set sëriñ Touba maanaam ku mu dégg ni borom xam-xam nga rek day dem jox la boppam mais dafa amoon tegtal yoo xamante ni moo ko doon wan ki muy seet tegtal yooyu bu ko gisul ci yow day continuer recherche am tu vois et bokkoon na ci tegtalam que ni kooku muy seet doomam yëpp dañuy juddoo garaatu xut bu samaan mais ki mu mujj tarbiyu doomam yi mu yi am yëpp daf ci am benn doomam boo xamante ni ganewaalewul loolu moo xam ni du moom mais mu continuer di liggéey ba jékki-jékki am ñaari taalibe Serigne Touba yoo xamante ni sëñ bi moo leen yónni woon mu gis leen ñu jaar foofu si sëriñ bi fekk mi mu ngi nekk foofu di tarbiyu euh, di liggéeyal sëriñ bi ba mu leen gisee mu ne leen yéen fu ngeen jógee ñu ne ko ci Modou Bamba mu ne beneen Modou Bamba taa am mënul bii ñu ne ko ah kay mu ne fu ngeen jëm ni ñu ne daf ñu yónni ci buur ci am fu mu leen yónni ñu ne ko bu ne leen ah, dem leen ba dëpp bu ngeen yóbbaale leen ma ànd ak yéen daal tàggu sëriñam sëriñam daal di koy xamal ni ah, fii kenn mësu fee jóge di dem ci beneen sëriñ fii ku fi jóge da ngay dem faji aajo mais doo dem di mm-hmm. mu ne sëriñ bi boo da ngaa xëyoon xëy rek gis ma ah, ma xëy ne ñaanal ma ñaanal ma ma dem foofu Serap Fall dafa jàngale fulla ak fayda parce que li ñuy seet bu ko gisul lenn du ko téye day dem seeti ko feneen. ñooñu ba ñu dëppee mu ànd ak ñoom mu àndeex ñoom àgg ci sëriñ bi pour tënk wax gi mu ne maa ngi koy junj keroog ci màggal gi ba mu jàkkaaroo sëñ bi yàlla la ko laaj sëñ bi ne ko bu ñu xamoon fu yàlla nekk doo ñu fi fekk. ci jullee fi am woor natt asaka dem màkk mu ne ko loolu bàyyi naa ko fu mu jóge woon fi ma jóge ndaxte Cheikh Fall laataa mu ji Serigne Touba c'est un érudit alim la woon Cheikh Fall du woon ignorant jàng na xam na li téere yi wax ci la ne ko loolu diglee yàlla la mais du yàlla te yàlla dafa ne balaa nga may jaamu xam ma boo ma xamul doo ma mën a jaaw donc logiquement c'est mm-hmm. acceptable mm-hmm. sëñ bi jóg bu dox moom ci rukk ne ko boo bëggee dem ci yàlla il faut que nga jébbalu mu ne ko nu ñuy jébbaloo mu ne ko doo fii di des sa dund doo bëgg leneen lu dul yàlla waaw ah, foofu Serap Fall jébbalu mu jébbaloo ne ko maa ngi lay jox sama bopp ngir nga àggale ma ci yàlla ak aslamtu nafsi li rabbil alamin maa ngi lay jox sama bopp ngir nga àggale ma ci yàlla noonu la ñuy jébbaloo mm-hmm. sëñ bi daal ne ko nangul ko ba pare xamal ko ni ku namm dem ci yàlla baatu laa ilaha illallah mooy li nga xamante ni moo gën ci li ngay tudd ci li ngay def jaamu yàlla yi bu ci gën mooy baatu laa ilaha illallah ba pare daal di koy jox ak baab akub semmiñ maanaam matériel yi ñuy liggéeyee tool mm-hmm. maanaam ñaar yooyu dafa symbolique baatu laa ilaha illallah moom mooy purifier l'âme ruuxu jëmm du dem ci yàlla ruuxu mooy dem ci yàlla mais ruuxu pour mu àgg ci yàlla yàlla il est pur il faut que ñu purifier ko ba mu ëpp ndax laa ilaha illallah jox ko bagage yi mu war a liggéeyee bagage yi lan mooy symbole mooy le travail mm-hmm. bi nga xamante ni moo ñëw taxaw ci yoonu murit développement yoonu murit loolu moo ko symboliser la travail sëñ bi da ko xamal ni jaamu yàlla day dem ci ñaari dimension temporelle ak spirituelle temporelle mooy tu as physique mm-hmm. physique boobu lu muy dundee mooy ñam ñam boobu muy dundee il faut que mu nekk lu sell lu lucide mhm. te li gën a wóor ci lu lucide loo xamante ni di nga ko war a mën a consommer mhm. jëfandikoo pour jaamoo ko yàlla mooy li nga xamante ni moom nga ñàkk mhm. donc liggéey liñ ci liñ ciy jublu liñ ciy ut mooy am loo suturloo ba pare am ci loo xamante ni di nga ci mën a jaayanteeg sa borom def ci yoonu yàlla loolu mooy cause économie ci wàllu yoonu yàlla leneen li mooy zikrulaa bi tudd yàlla bi en permanent loolee mooy li nga xamante ni moom la ruuxu di dundee parce que ruuxu dafa nekk lu nga xamante ni moo jiitu jëmm mhm. te fa mu nekkoon démb di fa dund te baatu laa ilaha illallah la doon dundee mhm. boobu gisawuloon leneen lu dul yàlla léegi nag comme ruuxu moo war a dellu ci yàlla mhm. donc nutrition boobu rek moo ko mën a delloo ci yàlla moo tax yonent bi di wax naan buñ jëloon àddunaax li ci biir teg ko ci balance jël benn baatu laa ilaaha illallaah teg ko ci balance ba laa ilaaha illallaah bi moo gën a diis mm-hmm. moo tax booy dugg ci diiney lislaam dañ naan la tuddal yàlla laa ilaaha illallaah mm-hmm. nga tudd ko ñu ne muhammadur laa donc foofu tamit am na jàngale mm-hmm. laa ilaaha illallaah mooy yàlla kenn la dara amul lu dul yàlla muhammad moom la yàlla tànn rasul ci arab mi ngi tudd ku ñu yónni moo ci amee risaala bi waaw ki ñu yónni léegi nag foofu dañ koy détaché yàlla ki mu yónni ak la mu yónnee bokkuñu yàlla ki mu yónni ak la mu yónnee ak ca kam ko yónni duñu benn hmm? mhm. donc yàlla mooy borom moo bind ci biir mbindeef yooyu yëpp mu tànn Muhammad mais Mohamed foofu am na beneen jàngale baatin bu fa am mais Mohamed dans la sens logique foofu dafay symboliser doomu aadama te yàlla dafa ne li ma sàkk yëpp doomu aadama laa ci gën a bëgg. Mm-hmm. mais ci biir doomu aadama yooyu mu tànn ci mbindeef bu ñuy tuddee Mohamed daal di koy yónni jox ko mooy yónnent boobu moom la ñuy tuddee rasul mooy rasul gi ko mm-hmm. rasul mooy ku ñu yónni. Mm-hmm. léegi message bi ñu ko jox moom la ñuy moom la ñuy faral di def bu ñuy tarbiyu dañ naan il faut détacher. le messager et le message léegi messager bi muy la profet ba mu jottalee message bi mooy ñi nga xamante ni ñooy wër dëgg de dëgg mooy yàlla bañ ca jotee ñi nga xam ñoo jot dëgg gi foofu nag sunu borom daal na leen rek leen mhm. ki nga xamante ni mooy messager bi mooy muhammadu rasulullah allahuma salli ba sayyidina muhammad wa sallim boobu moom la borom bi di wax naan euh, julli naa ci yonent bi te digal naa leen ngeen junni julli julli ci yonent bi parce que yónni na yónnent bi yónnent bi matal na yónnent bi mhm. léegi moom borom bi sant na yónnent bi mais ñi jot yónnent bi te nee na aussi ñooñu nañu sant yónnent bi mhm. loolu moo indi julli ci yónnent bi ci yoon wi donc parcours boobu dafa démarrer laata julli di am woor di am natt asaka di am dem màkk di am yooyu yëpp avant ñuy am machine boobu maanaam activité jaamu yàlla boobu activé na mhm. parce que yónnent bi woote na douze ans julli amul woor amul natt asaka amul dem màkk amul léegi julli ñi lañ lañ daan jaamoo yàlla mooy yonent bi da leen daan tarbiya ci baatu laa ilaha illallah pour àggale leen ci yàlla parce que baatu laa ilaha illallah mooy purifier xol te xol yàlla dafa ne ba ngeen may seet ci fépp nekkuma fenn fu dul ci xolu jaam bu sell awma bërëb man yàlla nekkuma ci kaw asamaan nekkuma ci kaw suuf nekkuma fenn bu ngeen may seet seet leen ma ci xolu jaam bu sell mm-hmm. léegi nag ñi bëgg dem ci yàlla ñi nga xam ñoo yittewoo yàlla ñoom liñ ko déggee ci wax jooju mooy que dañoo war a sellal seen xol pour yàlla wàcc ci. Mm-hmm. léegi loolu foofu la loolu tracé boobu mooy yoonu murit mooy yoonu murit ñi namm dem ci yàlla. muridullaahi muridullaahi ñi namm dem ci yàlla léegi nag processus processus boobu lañ lay jaarale ça n'a rien à voir ak Mouhamed parce que Mouhamed yónnent la dañ ko yónni. Mm-hmm. donc da nga koy remercier après Mouhamed ba mu fi jógee doon tarbiye saxaaba yi mu njëkk a tarbiye di leen yóbbu ci yàlla ba mu fa jógee ñu tëj buntu nubuwatu ubbi buntu wilaayatu ñoom ñooy euh, remplacer yonent yi après ba ñu tëjee parce que yonent yi tëj nañ leen te amatul beneen téere buy wàcc beneen diine dootul wàcc foofu nag buntu wilaayatu moo ubbi ubbeeku mooy xaritu yàlla yi yonent bi doon na wax naan bu ma fi jógee cent bu nekk yàlla dinaa dinaa wàccee kenn pour mu tontu demande yi parce que psychologie doomu aadama dafay évoluer temps bu nekk ak réalité yu fay xew donc il faut que ñuy yàlla di envoyé des innovateurs mhm. moo tax ay Serigne Touba Cheikh Ahmed Tidiane Abdoul Khadir Jelaani Imam Ghazali ñëw ñëpp ay innovateurs lañ ngir répondre les demande du moment mhm. léegi euh, Cheikh Rafal nag mission am lan moo tax mu ngi parce que yoon woowu nga xamante ni mooy yoonu murit nga xamante ni moo jiitu julli jiitu woor jiitu tesaaw jiitu dem maak Cheikh Fall mission dafa fekk ni nit ñi léegi euh, maanaam yoon wi dafa nëbbu mais jumtukaay yi nga xamante ni moom nga war a jëfandikoo pour tegu ci yoon wi jumtukaay yooyu leen jël def ko muy yoon wi moom la ñu tuddee ponk lislaam yi ak lislaam bokkul parce que lislaam tawhid la tawhid mooy nga jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak dara mm-hmm. mais pour nga accéder ci tawhid boobu il faut que ñu defal la benn formation formation de base formation boobu nag mooy que ni dañu lay purifier purification boobu nag julli woor natta asaka dem màkk dafa nekk ay ay ay mécanisme yoo xamante ni mi ngi mel ni tey jii boo feebaroon dem ci docteur pour mu faj la docteur bi pour nga am wér foo ko mu consulter la mm-hmm. bindal la recette ordonnance ne la ordonnance yi danga koy jël benn matin benn midi benn soir wala piqûre bii da nga koy jël benn matin benn midi wala soir wala régime bii bàyyi lii bàyyi lii bàyyi lii defal lii defal lii defal lii pour nga mën a am pour nga mën a accéder ci sante léegi nag ñëpp mënuñu tëb tëb àgg ci lislaam donc il fallait que ñu former leen former formation boobu nag moom la ñu indi ponk lislaam yi mooy julli woor natt asaka dem ma mais loolu du jaamu yàlla loolu dafa nekk ay mécanisme yoo xam ne nga war a jaar loolu mooy mandarga bi wane ni jullit nga ah mooy mandarga bi wane ni jullit yonent bi da parce que mouvement boo koy woo booy wootee xam nga benn nit ñaari nit ñetti nit juróomi nit neex na ñoo gérer mais bu ñu demee ba nekk mbooloo mbooloo boobu foog ñu am benn signe boo xamante ci lañ leen di xàmmewee. absolument mm-hmm. tu vois. léegi nag borom bi ci la woo yonent bi rañaane ko mu ñëw mu jox ko julli mu nekk benn genre pratique extérieure boo xamante ni dina permettre jullit ñi xamante seen biir. absolument créer aussi benn méthode de communication parce que moment boobu. technologie développé wul woon léegi jullit ñi bu ñu commencé nekk mbooloo naka lañuy def ba communiquer seen biir pour di mën a booloo nekk benn di action def benn politique culturel social mm-hmm. léegi jullit daana leen mën a permettre que ñi dëkk ci karte yi bu ñuy tasante juróomi yoon ci jàkk ji loolu dina leen permettre ñuy mën a échanger ci événement yi xew ci biir quartier bi am déet mm-hmm. yàlla boobu mu nekk premier principe deuxième principe juma ñu ne léegi jumaa bu jotee nañu bàyyi jàkk yi dem ci jumaa ji bu ko defee ñi dëkk Dakar Plateau ñi dëkk Médina ñi dëkk ñooñu dinañ mën a tase ci jumaa ji mhm. imam bi mën a door benn communication boo xam dina matale at at mi ñaari bis yoo te ni ñu ne dañuy bàyyi jàkk yi bàyyi jumaa yi dem ci àll ba parce que dëkk bi yëpp ñoo fa a dajaloo muy tabaski ak korité boo ko defee imam rapide bi après information générale yi mu am yëpp ki lay teg discours discours comme ni ñuy ni comme ni ñuy xaaree discours président après bu faloo wala 4 mm. avril bu nekk communication <laughs> loolu l'islam moo ko njëkk jàngale mm. système de communication boobu moom la l'islam njëkkoon teg mm-hmm. tu ba pare dala koy permettre aussi ba sa biir kër parce que waxtu julli yi tamit dina la permettre yow nga mën a contrôler sa njaboot bu ngeen a jullee ndoo fajar bi nga xam ñi français ñi français wul mm-hmm. <laughs> tisbaar bu jotee di nga xam ñi añ seex ñi añ siwul takkusaan ñi wàcc liggéey woon wàcc ndax wàcc ñu timis ñu nekk ci biti. Mhm. baggee da dina permettre père de famille bi mu mën a contrôler famille mhm. donc euh, système social la politique sociale la boo xamante ne l'islam da ko jàngale dès le début quoi mhm. tu mais euh, pratique externe bi dafa dominer ba nga xamante ne essence yooyu dañ ko bàyyi ginnaaw moo tax du am njëriñ du def benn effet du répercuter ci sunu vie sociale quoi ñu ñu ñu je sais pas Fabien sinon ñu ñu ñu ñu jóge ci ci màggal euh, naka démb 4 millions de personnes daje fi nga xam ni que ni moom mooy euh, Touba euh, Cheikh Ahmadou Bamba ñu bare dañuy def nii bu ñuy bu ñu defee dara ba réussir que dañ leen di feete moom ba muy jóge Sénégal di dem war a jaare ji jeewool fekki gouverneur fi nga xam ni que ni moom mooy Ndar euh, def fa li mu fa def jaare ji jaar Ndakaaru 21 septembre dem Conakry dem Grand Bassam dem Libreville Mayomba euh, ba muy dem la décidé ni lii sama ndam laay jëli mu mel na dafa wéetal ak boromam euh, fu nekk mu jaar fa jël fa wérd toog benn moment lii yëpp doyuma am na benn martaba bu ma bëgg am sama borom te 1895 bii juróom-ñaari at yi nekk sama kanam si laa ko mën a liggéey euh, donc màggal nekk euh, loo xam ne lu spéciale la si moom mais ñun Sénégalais lan lañu am de particulier pour que àdduna bi yëpp ñu mën a am ku mel na Serigne Touba mu soqee koo fii bind fi loo xam ne kenn mënu ko corriger mhm. du si euh, du si maas ba mhm. du si arab ba te fekk du langue maternelle am ba pare am si grade boo xam ne Xaadimu Rasuul kenn mënu ko dingat si biir àdduna bon loolu tamit euh, dafa bokk ci miracle Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasul parce que sànq ba may exposé diggante Cheikh Rafal ak yoonu Mouride parce que Cheikh Rafal après ba mu defee pacte boobu ak Serigne Touba Serigne Touba dafa ne ko dafa ne sëriñ Touba euh, fii lu ma fi amul. Serigne Touba dafa ne ko fii lu fi nit amul rek da ko fay jëfal Cheikh ne ko fii lu ma fi amul dafay neewul. ba pare mu ne ko ki may seet bu ma ko gisul dinaa wër am bàmmeelam ba gis bàmmeel bi di tarbi yu bàmmeel bi ba yoonu murit taxaw muy chemin bu authentique boobu nga xamante ni julli ak waras a te asaka dañ koo nëbb donc Cheikh Fall ñëw pour mu wane yoon boobu il fa que mu violer loolu dindi julli dindi woor dindi asaka dem maak pour yoon boobu mën a génn pour éveiller conscience yi mm-hmm. mais avant Cheikh Fall daan naa fi laa guddi lëmm kaamil alxuraan taxawee benn tànk naa fi laa ko guddi gi yëpp kaamil alxuraan benn tànk boo gisee foto sëriñ Tuuba Seero Faal yëpp benn tànk lay taxawee loolu gars yi seetlu wuñu ko et puis Faal mosul sol yére bu weex sëriñ Tuuba mosul sol yére bu ñuul. loolu. ndax lan loolu. c'est le yin et le yang. waaw. <laughs> la nuit et jour. oui moom lu ñuul la doon sol. waaw Seero Faal lu ñuul rek la doon sol. mais au fond lu weex lay jiital. Serigne Touba lu weex rek lay sol la pureté waaw si au fond lu ñuul lay jiital hmm. foofu ñu ngi lay jàngal sur limange mais gars yi liiruñ ko jànguñu ko hmm. parce que yàlla pour mu créer pour dund mën a am dafa dafa dafa créer le contraste parce que guddi bu amul woon bëccëg doo am bëccëg bu amul woon guddi doo am hmm. mais loolu dafay concerner ñi nga xamante ni ñooy jël la voie spirituelle. ñoom ñooy signes yooyu ñoom ñoo koy euh, ñoom ñoo koy étudier. ñooñuy étudier la symbologie métaphore yooyu yëpp ñoom ñoo koy allégorique parce que monde bi kaamil la quoi alam bi kaamil la téere la. c'est des signes aaya la yàlla moo ne alxuraan bi ay aaya la yàlla moo ne boo xoolee suuf si ni ma ko téyee asamaan si nu ma ko téyee jant yi weer yeeg alternance bi am wax gudd guddeex bëccëg yow yëpp ay signe la mm-hmm. te signe mooy alxuraan mooy aaya alxuraan kon alam bi aaya la yow boo fekkee ni da koy gis te comprendre loo ko comprendre loo tu vois mais Serigne Touba yàlla dafa ne ci alxuraan boo ma ragalee ma xamal la yàlla moo wax ci alxuraan boo ma ragalee ma xamal la xamal la loo xamante ni nekkul ci téere làkk arab làkk la làkk yi nekk ci àdduna bi yëpp bari na mm-hmm. làkk yi am na ñu leen a tëddee mais làkk yi nga xamante ni téere dañu ci wàcc mm-hmm. tu léegi euh, yonent bi ci miracle bi ci yonent bi la commencé mu répété wu encore ci Serigne Touba mais Serigne Touba dafa am ñetti tur yoo xamante ni bokkuñu Cheikh Ahmadou Bamba mooy doomu Mamor Diarra Mamor Anta Sali mu jóge fa nekk Serigne Touba kii jël jaami di leen yóbbu ci texe mooy Serigne Touba maxaama Abdullah wa Xaadimu Rasul nag moom moom la jëli muy jaamu yàlla ak serviteur profet bi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam kooku moom mooy vrai turam authentique i mooy mooy graatam parce que Mohammed mi ngi su mi ngi tekki le choisi yàlla moo ko tànn mm-hmm. al Moustapha yàlla bëgg al Bachir Mohamed de Mohamed am na plus de 200 tours. Wow. interprétation tu vois donc authenticité bi nga xamante ni parce que Serigne Touba li tax mu li ñu war ko étudier Sénégal parce que dafa feeñ ci benn contexte boo xamante ni contexte bu difficile la. ba tax fekk buur ceddo yi fekk fi tubaab yi fekk fi Serigne si ñoom ñett yëpp ñu nekk en conflit. Mhm. donc moom mu feeñ ci benn contexte bu difficile boobu boo xamante ni fekk na nit ku ñuul ñu ñu ñu doyal ko ginnaaw mu mhm. souffrir pendant. deux cent ans esclavage deux cent ans colonisation ñu dem ba amatu suñu repère yëpp ñu détruire ko tubaab bi détruire ko mu war a ñëw nag pour joxaat nit ku ñuul gëddëm mu war a ñëw nag pour joxaat nit ku ñuul parce que laataa Serigne Touba di ñëw bu ñu soxlaa diine fu ñu ñuy dem ci araab yi mm-hmm. bu ñu soxlaa xam-xamu science moderne fu ñuy jëm Égypte wala Grèce mm-hmm. non ci tubaab yi parce que tubaab yi ñoo ñu colonisé tey jii bu intellectuel buñ ko boo ko tuddee ñu yaakaar ne mooy kii def université Mm-hmm. et ça c'est pas de l'intellectuel kooku du intellectuel mm-hmm. non parce que mën naa wax ni tey jii quatre-vingt pour cent université li muy produire c'est des ignorants mm-hmm. te ba ma la joxee exemple bi di koy parce que boroom xam-xam yi dañu ne xam-xam bu ñu bind loolu du xam-xam riwaaye la loolu da ngay nettali xam-xamu jàmbur mais xam-xam dëgg mooy parce que góor yàlla yi dañ ko dañ ko diviser en quatre parties xam-xam bi nga xamante ni da ko dégg. Mhm. mooy mooy riwaaya li nga dégg. Mhm. li nga gis. moo mhm. gën a wóor li nga dégg. li nga dégg ba pare gis ko ba pare laal ko moo gën a wóorati. tu mais am na ci xam-xam boo xamante ni quatrième bi gën a aju mooy li nga mos. mooy li nga mos te loolu nga mos munoo fexe. bu ne la lii lu muy saf neex na rek nga mën a wax mais guuf bi mënoo koo nette oui. yow boo amee doom mën ngaa dem togg dem marché togg defar lépp mu sotti mais mënoo ko lekkal ci postal non non. yàlla noonu la melax jaam yi am na loo xamante ni ci yàlla nit mënula ko may foofu yow yaay def Euh, démarche individuelle bi dem ba accéder ci. waaw ku ci nekk ak kii yam. tu vois sa relation ak yàlla. ak yàlla mm. moom la ñuy tuddee dans langue française moom la ñuy tuddee la connaissance dégustative la sax la connaissance du goût tu vois. Mm-hmm. moom la tubaab bi wax sax naan les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mm-hmm. tu vois la mu saf ko ko màcc ko xam. foofu nag la yàlla nekk ko mais yeneen yi ci des yëpp taxul nga àgg ci yàlla taxul nga xam ko tu ñun ci dimension boobu ñu nekkoon nga xamante ni dañu amoon discrimination universelle nit ku ñuul ba muy nit ku ñuul ba fi mu toll nii mosul am valeur ci kanamu tubaab mosul am valeur ci kanamu naar. Hmm. léegi Serigne Touba loolu complexité boobu. il hmm. fallait que mu révolutionné ko. waaw donc moom ci kaw étant conscient ci loolu. dafa def benn pratique mystérieuse gëstu pour défier l'humanité xamal leen ni nekk nit ku ñuul taxul gàtt xel. absolument. nekk nit ku ñuul taxut nekk un stupide stupide wala ignorant. Mhm. te ñoo leen gën a intelligence boo xoolee dans les universités et consorts. ñoo leen gën a dëgër parce que au moins on a la foi. est-ce que yaa ngi dégg non wax sax ñun lan moo tax ñu nekk victime sur la colonisation et l'esclavage. parce que mhm. on était très beau. nit ku ñuul dafa amoon physique boo xamante ni. Mhm. dafa extraordinaire. tu et puis. à base de la différence culturelle parce que xamoo ñun fan lañ ñu loree colonisation fu ñu loree ba mu ñëwee bëgguñu imposer moom. stylam stylam. Mhm. mais pour mu imposer ñu stylam il fallait que mu mu mu def benn genre politique de de complexité maanaam li nga xamante ne mooy suñuy valeur il fallait ko mu éliminer ko. Mhm. ba mu mel ni ñun ay mala lañu comme ça mu mën a imposer li nga xamante ni euh, mooy li nga xamante ni loolu la bëgg. Mm. léegi nag ba muy def loolu ñëwee fi di def loolu daf fi tombeek ceddo yi ceddo yi mais ñoom ceddo yi seen seen pouvoir lañ doon sàmm yeneen sëriñ si def na ñoom liñ mën ba nga xamante ni seen doole fi mu yem foofu la yem. Mm-hmm. mais sëriñ Touba yàlla ñu ko yàlla fayal. yàlla moo ñu ko baaxee ngir mu indi saafara ci côté boobu. Mm-hmm. parce que moom ba mu ñëwee boo xoolee yàlla da ko mettre en conflit avec sëriñ si. ak ceddo yi ak tubaab yi mais tubaab yi ba ñu ñëwee ba ñu daanee sëriñ si maîtriser sëriñ si maîtriser ceddo yi sëriñ si li ñu leen maîtriser dañu ne ñii mënuñu leen taree def ay jullit mais nañu leen def ay jullikat julli leen woor leen natt leen asaka dem leen màkk wajife leen def leen lu leen neex mhm. mais lu jëm ci politique culturelle social économie dëkk bi bu leen ci daal bu leen ci dugg mais man tey ji boo dindee loolu ci sama dund lan laay dese mhm. loolu mooy objectif diine politique économique mm-hmm. culturel social mm-hmm. spiritualité la spiritualité dafay concerne la vie future la vie après la mort absolument mm-hmm. et puis pour nga atteindre l'équilibre ci moment bi nga nekk ni pour accéder sur la paix intérieure il faut nga waaw moom la moom la la ñaan bi leen indi rabbana atina fi dunya xasanatan wa fil axirati xasanatan wa qina na naari yow yàlla même àjjana fii si àdduna même àjjana fa la ñu jëm mais àjjana boobu paix la intérieur Bachir Mouhamadul Bachir mm-hmm. mooy que sëñ Touba ba muy dem ci géej gi am na soxnaam soo xamante ne dafa nekk jigéen bu wérul mu ne dina am gan bu dee góor nañ ko def Mouhamadul Bachir yow ku ñuy dem di la sànk sa doom juddu ñu ne nañ ko jox mbégte bi ba Bachir mooy mbegte bi kooku ragalul fi mu jëm. non non. et puis boo weesoo diine dafa am premier phase ak deuxième phase premier phase bi mooy da ngay respecter euh, les lois jurisprudence la justice. parce que la mm-hmm. justice rôle mooy mu mën a créer l'équilibre social la paix sociale. Absolument. parce que sans justice. paix sociale mënul am. Mm-hmm. léegi justice boobu mooy charia. Mm-hmm. mais. bu fekkee ne respecté nga charia di nga am jàmm dinga am tranquillité di nga am dal mais après il faut travailler. waaw mais respecté loi taxul weer dee nga fayee ko. pour nga il liggéey léegi pour nga liggéey il faut nga am xam-xam il faut nga am droiture. foog nga jub de. foog nga jub foog nga am droiture morale forte. Mm-hmm. boo demee en Occident amuñu ñoom dañoo expulsé yàlla boolewuñ ko seen biir. mais moral lañ jël teg ko plan su charia. Mhm. mooy principe yi ak yooyu. yi nga xamante ne waaw dañu koy kii yenn saa yi waaw. est-ce que yaa ngi gis. Mhm. mais mais mais Ndiaye est-ce euh, euh, benn projet de société bu mu teg. Mhm. parce que gis nañu euh, bi mu wàccee liggéey 1927. 1929 muy le crash boursier au niveau mondial crise am xaalis amatul. et pourtant jamono boobu la Mouhamadou Moustapha son premier xalif. Euh, lancé li nga xam moom mooy travaux jumaa ji. Mhm, première construction bi ah. waaw. 1945 mhm. euh, euh, boo seetee si la guerre mondiale bi. Mhm. doon jeex. Mouhamadou Moustapha coïncidence encore si lay wàcc liggéey sëñ Mamadou Fall ñëw. dugal li nga xam ne moom mooy donc. Euh, tey ñu gis Massalikul Jinaan bi ñu inauguré 27 septembre bi ñu génn fii ci Ndakaaru près de 25 milliards de francs CFA murid yi mobilisé ko est-ce que tey dafa am benn projet social boo xam ne bu ñu dindee mbirum diine bi fële tekk moom la Serigne Touba doon prôné pour que nit mën si jaar ba am épanouissement ba am liggéey daan dooleem parvenir euh, teg njabootam ci benn yoon euh, képp ku yeewoo fi ci réew mi nga xam ni kenn yoon boobu boo si jaaree di nga mën a liggéey doo chômer kenn du la mën a ger di nga porter ay valeurs mhm. culturelles nekk nit comme ni ko sëñ euh, Saliou doon waxee. Mhm. Euh, nit ñite moom moo si gën. Mhm, waaw xam nga lépp dafay dugg ci cadre maa ngi léegi say wax boo boo jëndee diine mais en réalité diine dara jënd ko le problème mooy que ni ñun Sénégal li ñu li ñu juumloo mooy. Euh, hmm, système euh, constitutionnel français la comme ni ñu koy tuddee la laïcité la laïcité bokk na ci li ne développement Afrique bon tu as les États-Unis mhm. yow xam nga États-Unis un athée mënu fa nekk président mhm. parce que foofu booy xool en général président buy wax bu paree dina ñaan yàlla ñaanal Amérique we trust in God God bless <laughs> yaa ngi dégg wax ji bañ nañ ko sax ba bu fekkee ni dangay ngay demander euh, présidence is ñuy xool yow sa religion. absolument ak sa foi. dina ni ñuy fale imam. noonu la ñu waroon di falee président. parce que yonent bi indiwul yenent bi civilisation la indi. civilisation boo xamante ni nit lay defar nit. nit nit la yàlla woo nit la yàlla ñun suñu cause existence ci kaw suuf. du tabax ay immeuble du tabax ay tali du defar ay loolu du développement xam nga boo bëggee développer dëkk nit ki ngay faxe ba defar ko ba développer nit ki parce que nit sinon bu fekkee ni da nga da nga tabax te defaroo nit ki loo tabax nit yàqaat ko. moo mm. jox la benn exemple tubaab bi ba mu ñuy jox indépendance la mu fi bàyyi woon ci lu baax yëpp mais ba mu demee ñun dañ ko yàq. Mm-hmm. dañ ko yàq parce que tubaab bi respect bi ñu joxoon sax en tant que humain après suñu politiciens yi remplacé tubaab bi ñu ko. loolu li ko indi parce que éducation de base respect le droit humain parce que boo xoolee sax dans le domaine international. organisation internationale yëpp lan la ñuy défendre l'humanisme mais l'humanisme mooy li nga xamante ni moom mooy nit al ihsan tu vois Serigne Touba dafa maanaam programme bi yeneenti bi indi moom la réussir au niveau de Bawol li yonent bi réussir oon au niveau de Mak moom la Serigne Touba réussir au niveau de Bawol muy def ay résultats am nit boo ko defaree dafay nekk xam nga yàlla sama sëriñ daf may faral di wax ni yàlla mooy utilité njariñ loo amul njariñ du yàlla bilaay dëgg la. <laughs> nit dafa war am njariñ yàlla lépp lu la sant. am na mboot bu mu ci daxin boo xamante ne bëgg na nga jot loolu. dëgg la mais la problème mooy bu ñu la éveillé wul ba nga xam loolu yow da ngay répété. Mhm. mais doo xam maanaam maanaam mboot bi nga xamante ne njëriñ bi nga xamante ne ci la yàlla daxin ci loolu. Mhm. yow doo ko jotee. loolu li koy indi nag mooy ignorance. moo tax Serigne Touba dafa bind lu bëri bàyyi fi loo xamante ne ba léegi ñu ñu ngi ciy sukkandiku mhm. te boo xoolee tamit yoonu murit mhm. moom am na nu muy doxee am na nu muy jëfee mhm. faw rek nga boo ci bokkee nga doxee ko jëfee ko li nga xamante ne lu bees li euh, xalif bi indi bi daanoon na ko sax wax mooy greffage yeeg faux ongles yi kii yu yu mel noonu euh, da ngay dem ba nga xam ne ne am na man je suis persuadée am na ay jigéen yoo xamante ne bu ñu fa jógee ñoom ci seen bopp dinañu dinañu yaaraat encore seen bopp si loolu. prise de conscience. prise de conscience parce que boo xoolee greffage yi li muy li muy cher. Mhm. yow nga def lépp li ngay def yëpp euh, dara naturelul mhm. et tout ça. c'est vrai que man mii di wax ni nii musóoruwuma mhm. mais attends li ma def nii moo gën a kii parce que euh, di nga mën a julli di nga jàpp amul mystique di def dara <laughs> voilà dina tooy euh, donc et puis ça représente suñu africanité donc daal euh, yoonu murid li mu jàngalee. Mhm. Euh, dafa bari ñun ñoo ci. sukkandiwul waa waaw waaw il est très il était très cultivé. maa ngi koy wax si sunu émission yi la passé. nit ku am mhm. culture moo ko gën a nit ku jàng. ah oui. parce que nit ku am mhm. culture nit ki balaa nga koy dal da koy éveillé. nit ki balaa nga koy waar da koy éveillé. dëgg la. parce que benn li yàlla soxla ci jàmm. jàmm bu nekk am na ko. bilaay dëgg la. jàmm ñëpp a tolloo ñëpp a tolloo ci kanamu yàlla yàlla li mu lay laaj daf la ko jox avant mu lay créer avant mu lay wàccee ci kaw suuf ku nekk am nga potentiel yow sëriñ bi xam nga ban rapport ngeen am pour mu xamal la yow sa bopp mm-hmm. yow rapport boobu rek ngeen am yow sa mm-hmm. rapport ak sëriñ bi mooy mu xamal la du leneen mm-hmm. te yoonu murit bokku tax njabootu sëriñ Touba no bokkul yoonu murit dafa am njaboot sëriñ Touba ni am diine l'islam bokku tax Mouhamed Mouhamed ak njabootam l'islam l'islam la yàllaa ko moom kenn moomu ko essence lumière la Mhm. il faut que ñu bañ a jaawale il faut que ñu bañ a jaawale carte gi. Mouhamad mhm. ak rasul gi bokkuñu Mouhamad dafa taxaw nii rasul gi nekk nii mooy le messager et le message bokkuñu mais yooyu foo ñu tax ne charia ak islam bokkul. Mhm. yooyu yëpp bokkuñu foog ñu taxatle ko parce que dafa am lu nga xamante ni hypocrisie ak égoïsme ak corruption ak falsité doomu aadama dafa am feebar yooyu ci moom te yooyu mun na ko utili mën na utiliser religion à nit mën na dem jàng téere yi ci àdduna bi yëpp mais benn objectif rek la am mooy s'enrichir hmm. individuellement ouais. Hmm. à court terme nag mais nit ki mën na jàng mën na bañ a jàng benn téere mu sincère yàlla xamal ko loolu moo indi nabil ummi yu nabil ummi yu mooy yonent bi jàngu le prophète illettré waxuñu le prophète analphabète illettré jàngul mais xam na. mais dañ waaw waaw dañ leen sol dañuy wax ak yow. que connaissance bi lay yóbbu ci yàlla kenn du ko bind. sëñ Tuubaa bi koy wax ci Masaalikul Jinaan ñu dellu si waat si. Hmm. Masaalikul Jinaan boo jëlee 80 pour cent wu des murit jànguñu ko te mooy côté yoonu murit. Masaalikul Jinaan Masaalikul Jinaan téere bi mooy côté yoonu murit. tey ñi hmm. boo demoon bëgg a dawal oto fooy xaw nga dem def ko. bilaay def pratique. mën man na ñaan yi nekk si biir rek laa xam. Ah, xam bi ma si njëkk xam mooy 50 basmala yi. waaw ah, mais xam nga yooyu. yooyu yooyu rek ay ay question de muslaay ak. Ah. ay ñu bëgg a wërsëg ak ñu bëgg ku leen aar ak ñu bëgg hmm. mais dafa am loo xamante ne sëñ Tuubaa da ko wax nee na ñetti aal yi yàlla du ko maye da koy jaay. Hmm. alxuraan aljana albarke. da koy jaay da jaay du ko maye. macha allah. mais yow tey jii bu fekkee ni ci yàlla nga jëm mais li yàlla lay jaay ak li yàlla lay nga ko xàmme. Mm-hmm. koy jaay ça veut la. da koy jaay jaayante yàlla moo ne ci alxuraan. Mm-hmm. gëm leen yàlla. ragal leen yàlla sàkku leen ko àgg ci yàlla te mën leen àggale ci yàlla ndax ngeen mën a jaayante ci yoonu yàlla. ça nous revient un peu ci li ñuy jàngale ci dignité. mais sa caractère. waa caractère la dignité humaine. parce que tey jii dafa am yoo xamante ni. Mhm. Euh, nu mu tuddati c'est anti c'est c'est anti c'est anti humaine quoi. c'est la bassesse quoi mun la ñu tuddee. parce que yow tey jii. Mhm. yàlla yow nit tu es transparent. Mhm. yow yàlla dala sàkk teg la ci entre ñaari reñ. muy règne animal ak règne angélique. Mhm. yow centre la ci diggante bi. mais bu fekkee ni yow mënoo def loo xamante ni yàlla programmé wu ko ba pare. parce que boo waddee da ngay dem dans le règne animal. Mhm. di jëf comme ni mala di jëfee. dëgg la ni mala di jëfee mooy lan mala lu mu lekk lu mu naan ak lu mu sëy rek lay lijjanti. boo xoolee activité doomu aadama yëpp ci kaw suuf. Mhm. nu mujj fenn lu dul ci cuisine bi ak ci taabal ba. fa lay mujj. c'est vrai. jigéen ak lekk. mooy awra biir ak pay moom la ñuy servir. dëgg la. léegi nag nit ñi dañuy dem ba nga xamante ni dañuy dem ba mala yi fi ñu yem sax ñu dañoo dem ba dépassé liñ ci suuf. parce que mala au moins il est sincère. parce que li yàlla santaane defuñu ko. non parce que tu sais mala boo demee xaj la xaj am na jikko bu yàlla jàngale ci xaj. mooy xaj xaj xàmmeewul ku dul boromam. la fidélité la fidélité. mais am na doomu aadama yoo xamante ne amuñu ko. bi laay dëgg la. pratiquement gaynde gaynde buy lekk. su lekkee ba suur. balaa muy lekk day xiif. te buy lekk lu baax lay lekk. dëggal te du lekk ba suur. gaynde du lekk ba suur. ah bon déedéet. lekk ba baaxul day indi. waaw loolu Serigne Touba xam naa ko ci jàngal ah, naa ko ci moom waaw da ngay bàyyi tuuti daal yenn feebar yoo xamante ni xiif lañ koy faje waaw comprendre nga. Mhm. ginaar. la mhm. la ci yàlla jàngal. Mhm. teel a tëdd teel yeewu. teel a tëdd teel a yeewu teel maa sama waay si de moom la ñuy def teel a tëdd teel a yeewu ginaar ak Serigne Touba yàlla nee na kaddu yi jëpp ci kow suuf yëpp bi ko ci gënal mooy bu ginaar waa parce que benn day sap benn sap fajar waaw fajar bi mu ci bi mu ci gën a bi mu bi ci yées mooy bu mbaam mm-hmm. day te du wax dara day yuuxu rek te du wax dara mm-hmm. <laughs> man ñoo xamante ni dañuy wax rek mais waxuñ dara mm-hmm. tu mais man wéeral nga ma sax sama engine bi dem na. <laughs> man xamoon naa ne bu ñu commencé waxtaan nga wér. billaahi billaahi. <laughs> et puis wax dafa garaaw. billaahi foog ñu faire def attention. parce que dëkk bi ñu ko jiite ak sëriñ si ak politiciens yi. Mhm. dañu yaakaar ne ñoom rek a nekk ci dëkk bi ba dañuy nekk ci télé rajo yi di wax rek. Mhm. mais wax ñeent la ñeent kàddu rek ñoo am foo dem ci àdduna bi ñeent kàddu yooyu la. wax boo xamante ni day bàyyeekoo ci bakken passion. nafsu waaw nafsu.

yàlla dafa am ñaari reñ yu nekk reñ reñ reñ reñ animal bi parce que nit foofu la commencé ah dafa dafa am reñ minéral végétal animal humain looloo tax nit mën a imiter mala yëpp. Mm-hmm. mais lan la nit euh, bu bu boo xamante ni murit la. Mm-hmm. nga war a jàng ci yoonu mouridisme parce que lu tax ma wax la loolu c'est pas une question kii mm-hmm. mais dama gis ay nit yoo xamante ne dañu euh, dañu nekk murit. Euh, mais jëfewuñu ko doxewuñu ko c'est-à-dire man pour moi le mouride euh, dafa war a humile mm-hmm. euh, dafa war a am dignité dafa war a gëm jàng dafa war a gëm liggéey mm-hmm. ba pare bañ a beew mm-hmm. respecté kàdduwam lan nga ñu mën a wax ci nit yi nga xam ne dañuy seetaan te loolu réer leen ngir yàlla ak yónnate ba te ñu ne ñoom ay murit lañu bon actuellement li tax mu doy waar mooy que ne fii léegi dafa bëri ñu nga xamante ni dañ bëgg a xëy nekk murit te tarbiwuñ murid dañoo bàyyi tarbiya ginnaaw. luy tarbiya. xam naa ko mais pour ñu may seetaan. ñu yar la defal la formation. waaw dañ koy yar nit dañ koy yar nit faaw ñu defar ko. Mm-hmm. parce que diine l'islam du mm-hmm. lenn du dul yarax teggin. waaw am na solo de. mais yar ku am xel lañ koy def mais teggin ku amul xam-xam doo ko mën a am. Mm-hmm. mais bu fekkee ne judduwuloo ci ci euh, benn ci euh, yenn kii yi nga nekk tuubeen par exemple comme man. tarbiya weesu na wala weesu parce que c'est la sagesse euh, mais tarbiya mhm. par exemple mën nga dem nii rek dem ne ay 4 mois kii ak yooyu pour jàng kii wu murid non foofu dafa am benn crise yoonu murid dafa am crise ah te kenn waxu ko hmm. Hmm. yoonu dafa am crise crise bi ci am mooy que ni communication authentique bi jàllul diggante sëriñ si ak taalibe yi parce que léegi parce que taalibe xam nga sëriñ ñett la sëriñ bi naan la waxee ko ni sëriñ bi naan la defee ko ni sëriñ bi naan la xamee ko ni mhm. ñaari ñoo gën a bari sëriñ bi naan la defee ni waxee ko ni <laughs> mooy sëriñ bi lay jàngal nekk ci téere yi waaw muy ñuy tuddee fiqh jurisprudence xam-xam bi nekk ci téere yi mhm. bi naan la defee ko mooy sëriñ bi lay jàngal métier àdduna yi mhm. mécanicien mooy ki nekk ci développement mooy ki nekk ci développement ci développement mais sëriñ bi naan la xamee ko ni mooy ki lay xamal sa borom sëriñ boobu moo bareetul te sëriñ boobu mooy vrai sëriñ kooku mooy cheikhul mu rabbi bokk tax cheikhul mu àllim cheikhul mu rabbi mooy ki lay kuy yar sa ruuxu yóbbu ko ci yàlla cheikhul mu àllim nag mooy ki jàngal li nekk ci téere yi ni ñuy jullee ni ñuy wooree ni ñuy nattee asaka ni ñuy demee màkk julli bu yàqoo ni ñu koy defaree koor bu yàqoo ni ñu koy defaree ni ñuy ni ñuy jaamoo yàlla cheikhul mu àllim moo la koy jàngal mais cheikhul mu àllim boobu fu muy yem ak yow mooy bu la jàngalee ba pare moom mënu la mënu la force pour nga jëfe ko yow lay nekk nga jëfe ko wala doo ko jëfe mais est-ce que yenn saa yi sax dina nekk nit boo xamante ne am na ko tey wala exemple boo xam ne mën nga jàng dara ci moom waaw ben xam na parce que mooy loolu la fii ni ñu tànnee sëriñ soit ñu fi ëpp dañuy tànn sëriñ ndax buzz sëriñ yu am buzz yi ñoo ëpp taalibe si sëriñ yu am buzz yi ñu am tur yi man de am naa lu moo bëgg a nettali xaw ma benn ndax day toj toj day nekk toj toj wala daal bu dee toj toj bu a fi non du toj toj cest à damay wax li nga xamante ne mooy dëgg ci man man damaa damaa tuub 1989 euh, waaw trois jours avant Serigne Abdou Lahad di nalaw di wàcc liggéey waaw waaw di wàcc liggéey waaw mais may dem di dem di dem benn jour benn nit di waxtaan ak man ne ma mais danga da a dem jébbalu mhm. ci benn ci benn sëriñ mhm. parce que boo demulee jébbalu ci benn sëriñ mhm. euh, dafa mel ni yow bokkoo ci yoonu murit quoi bokkoo ci mhm. yoonu murit parce que sa murit des na mais nekk di poser ay questions ci ci ci loolu après euh, alhamdulilah ma dem ci kenn jébbalu euh, foofu ndeysaan ci doomam sax laa laa laa kiiwee mais kooku génn àdduna mais depuis boobu j'arrive pas à trouver sëriñ waaw j'arrive pas à dem euh, ci keneen je sais pas naan nañ ma ci ah mere ou pas mais damay wax sama dëgg. jébalu benn noonu lay doon jébalu ah. non non non non parce que. Euh, est-ce que loolu kii na ko non non parce que euh, xam nga foofu tamit moo tax ma ne la information bi jàllul. waaw parce que boo demee xam nga yoonu murit benn sëriñ moo ci am muy sëriñ Touba. waaw benn taalibe moo ci référence bi muy Cheikh Ibra. Mm-hmm. mais sëriñ Touba bi gratte la. dëgg la. Mm-hmm. Serigne Touba fonction la. mais mel ni tey président de la république bu fi bàyyeekoo mais est-ce que dañuy toog du ñu am président. non foofu ñu am beneen président. waaw te yàlla bi tamit noonu la mel. tu vois bi ba mu fi jógee dafa ne wàllu ñoo may boroom xam-xam yi ñoo may ñoo may ñoo may wuutu. borom xam-xam yooyu du ñi nga xamante ni ñoo mokkal téere bi de mooy ñi nga xamante ni ñoo xam xam-xamu baatinam. Mm-hmm. tu vois donc sëriñ bi boo demee jébbalu ci moom mu nangul la njébbal da ngeen am rapport rapport bi mooy mu xamal la mais tey jii xam nga nit mënul judd doon taalibe dee ci taalibe kañ ngay nekk sëriñ léegi sëriñ bi moom sëriñ la doomam sëriñ la sëtam sëriñ la mais loolu tradition la mais du dëgg waaw mais du dëgg du dëgg non parce que yéen sëñ Touba jàngal nañu ko dafa woo sëñ Mouhamadul Fadal woo sëñ Mouhamadul Moustapha ak euh, sëñ Massamba ne leen kuy seen sëriñ ñu ne ko ah ñun de yaakaaroon nañ ni ba ñu juree doy na mu ne leen déedéet man juróoma kenn kenn juróoma te li fi ne moom moo ko alalu yàlla la li fi li ciy may jàmm mooy sukk jébbalu am taalibe loolu mooy pacte bi ñoom ñëpp ñu sukk jébbalu sëñ Touba jaarale leen fi muy jaarale taalibe yi ci ngeen dégg ci la euh, anecdote sëriñ sëñ Fallou bu famo bu bu siiw boobu ci la sëriñ sa sëriñ Fallou def poésie bi ne sëriñ Touba jaay naa sama njureel jëndee ko taalibe hmm. ba pare ko yamul foofu te comme xam na ni Seera Fall mooy bunt bi kuy ut taalibe ci Seera Fall nga koy ute mu dem jógee ci kër Sëñ Tuba dem seeti Seera Fall ba mu ko ñëwee imaginez scénario bi Seera Fall bu mosaan gis doomu Sëriñ Tuba lu mu mësoon def taw bu toogoon ci kaw day toog ci suuf mm-hmm. se mu seen sëñ Fallu ba muy ñëw ba mu ko jibee sëñ fàll sumi dàll yi mu daw këf dàll yi ne nañ ko këppal foofu benn kii fi sëñ Fallu teg dàll yi foofu sëñ Fallou ne tey ñëwuma fii comme sama doomu sëriñ dama fii ñëw comme taalibe buy sàkku taalibe sukk fu mu sukk pour jébbalu ci Cheikh pour jaayanteeg Cheikh Ibra Cheikh Ibra ne ko da boo ko sëñ Fallou waxee loolu mu dugg ci biir fatu imaginer tey jii buñ ko doon natt ci heure tisbaar ba tàkkusaan wala ñu ne ci suba 10 heures ba tàkkusaan Seera Fall génnul sëñ Fallou ne fu mu jóg du fa toog ci digg naaj bi ba Seera Fall génne dana ko mat na da nga doon ko am na kon ñoo xam ne santaali bi des na. non communication bi moo jàllul parce que nit ñi dañuy jébbalu te pacte bi xamuñu cause bi. mais léegi bu Serigne Touba binduloon bàyyi fii fu ñu jëm. mais Serigne Touba wax na la ci Masaalikul Jinaan. Mhm. du lu ron lu nekk bong bong la. du. lu ron lu nekk bong bong la. waaw waaw. te du loo seen muy mbelax lu ne ndox la. waa balaa ngeen di jébbalu da leen fëgg Serigne si ba xam ndax leer am nañu leer war a amuñu leer. Mhm. parce que nee na dem na sax ba gën extrême nee na jigéen lu mu bëgg bëgg sëy du sëy mukk góor bu tële. Hmm. am déet. dëgg la waaw. je sais pas. tu vois. Mm-hmm. sëriñ bu amul leer noonu la mel. ndax kuy sëy ku ne bëgg nga njaboot. waaw mais loolu ah. bu fekke ne par exemple dal na sa jëkkër te nga nekk ci sëy mais war nga ko ko mën a muñal c'est une autre forme. ko faj waaw c'est une autre forme de. dimension de sell ak am iman. non parabole la parce que yow tey jii bu fekkee ne da nga nekk ak góor. Mm. léppam di fonctionner. Mm-hmm. ngeen am njaboot wala ngeen def benn parcours bu kii am lu ko dab mais foofu ngor ak gore day feeñ. Mm. beneen mais léegi bu fekkee ne par exemple nit ki. Euh, parce que tey ji affaire u diine ci affaire lu bëri la ñuy wax. Uh-huh. Euh, léegi bu fekkee ne yow. ci il nous reste euh, cinq non ce fut intéressant ah. <laughs> tey faj nga ma yaay sama médecin <laughs> barki Serigne Touba non dama bëgg a wax aujourd'hui benn. Uh-huh. Euh, su fekkee ne par exemple une femme. elle elle elle elle prend la décision de rester sans mari. Uh-huh. pendant des années. kooku. am na ci am na iman. am na ci droit. am na ci droit mariage d' obligation. sell na na mariage d' obligation. macha allah alhamdulilah. mariage d' obligation. macha allah yaa gën a jege yàlla de. non question de xam nga question de lan ah. question de boo la jox benn benn benn anecdote Ibn Arabi mu ne la castita. la mhm. castité muy la caste des des prêtres. est une fille illégitime du désir charnel. waaw parce que doomu aadama sa jëmm. moomuloo quoi si jëmm dafa am ay ay ay ay droit dëgg la bu xiifee dafa war a lekk mm-hmm. bu maree dafa war a naan mm-hmm. bu sonnee dafa war a nelaw énergie sexuelle bu manifesté woo tamit na nga ko war a satisfaire bu fekkee ni mun nga ko maîtriser macha allah ba xañ ko ko waa mais doo wàcc yoon waaw am nga droit bi macha allah <laughs> yàlla du la ci topp dara. ah macha allah alhamdulillah <laughs> ah, loolu jigéen bu ko mën santal yàlla. <laughs> yàlla du la ci topp dara bàkki Serigne Touba. macha allah yi foofu euh, mariage moom. waaw projet la yàlla dafa ne ñaari jigéen ak góor bu ñu bëggantee nañ sëy. dëgg la te sëy bi yàlla da ko oyofal ba nga xamante ni sax. njaaloo kon toog saan jëkkër. njaaloo woo defoo dara. seet la dina topp la dara. kooku waa kooku kooku am na am nga am nga kii ci yàlla ngërëmu. yàlla wala moom moo am. waaw xam nga tey jii bu ñuy liggéey ci yoonu yàlla. waa yow tu es seul. waaw macha allah. sa charge moo gën a oyof. mais man bu fekkee ne dama am njaboot di daw seen ginnaaw di leen satisfaire di leen yar ci yoonu yàlla bénéfice bi may am foofu moo ëpp bi ngay am. du tax te man may daw pour sama njaboot. en tant jigéen yow njaboot ba pare yow bon ñaari cas moo am. ki am njaboot ak ki amul njaboot bokkul. Mhm. célibataire mhm. koo xam ne amul njaboot musul takk musul kii ah. loolu mooy koo xamante musul am engagement social <laughs> loolu baaxul <laughs> sama sama xarit bi lay seetaan Cheikh Kouyaté xam naa ne tey dina jàng lu bari dama takki jabar <laughs> non Cheikh Kouyaté moom foog ñu wutal ko jabar on a ah, fait moom moom nangu amul amul doom amul jabar foog ñu wutal ko am naa doom am naa kii te am na sant ci bi nee na mariage daf lay permettre sëy daf lay permettre nga xaajal sa sa ci diine waaw et puis da nga ciy jaamu yàlla aussi. non tarbiya la. tarbiya la yonent bi dafa ne jigéen. toppatoo njabootam fonk waxtu julleem jëf lu baax bàyyi lu bon téye làmmiñam téye tànkam bu deewee dem àjjana. loolu la yonent bi waaw eh, eh, <laughs> ma bëggoon ñu tëjee ay ñu waay benn. ma bëggoon ñu tëjee non non parce que moom mën na def trois heures moom. ma bëggoon ñu tëjee benn parce que sànq da nga ko junj rek romb ka mooy pacte bi am entre sëriñ bi ak taalibe bi mais la place de l'argent léegi suñu diine mm-hmm. euh, nga ni euh, loolu mas dégg nga ni xaalis dafa dugg fépp léegi suñu société ba yàq détruire suñu ah, valeur yi ah, nit ki ah. valeur bu mu mënti am bu xaalis ñëwee mm-hmm. presque mu wadd nga ni même si biir kër sëriñ sax xaalis daf si dugg léegi la xamal benn affaire moom mën nga cee jàng lu bëri mm-hmm. lumière divine kër gu mu dugg muy leeru yàlla dafay attirer barke barke. kër gu mu dugg dafay attirer pouvoir pouvoir temporel. Mhm. mais leeru yàlla ak pouvoir boobu mënuñu dëkk. parce que loolu dafay attirer ñiy ñëw di dugg si ci kër gi yëpp au lieu ñu xool leeru yàlla bi mais pouvoir matériel bi moo leen fay yóbbu. waaw. Mhm. parce que booy fréquenter ay nit yoo xamante ne du ñu julli tamit benn est-ce que ñooñu c'est des gens fréquentables. li gën a doy waar mooy que ni. nañ def très attention parce que sëñ bi mën na woote. Mhm. ku nekk jël alalam def ci. mais cela veut pas dire ni yow boo demee këpp kees wala nga jël alal boo alalu mbooloo la dem def ko ci yoonu sëriñ bi rëcc nga de. Mhm. wala loolu dañ koy valider de non. parce que yàlla dafa ne yomal xiyam jëm ju nekk dinañ la teg loo mës am ci kaw suuf dinañ la laaj foo foo ko jëlee ak ba nga ko amee foo ko dugal. Mhm. kooku amul kooku mooy li nga xamante ni balaa ngay jéggi siraat yooyu yëpp day leer. donc kooku sëriñ bi nekkul un réfugié boo xamante ni dafay fat ay ñoo xamante ni ay délit la ñuy euh, commettre tu vois nga na kees dem ci sëñ bi sëñ bi ñaaral la intervention nga rëcc ci kaso ki nga xamante ni naa la xamal benn affaire ñaari xeetu sàcc ñoo am sàcc boo xamante ni yow yaa koy tànn ak sàcc boo xamante ni moo lay tànn xam nga ba sàcc moo lay tànn mm. sàcc bi nga xamante ni dafay nekk ci marché yi ci kër yi ci oto yi di tafu di maanaam sàcc sa portable sàcc sa saak dugg sa kër dajj ko sàcc boobu moo lay tànn parce que mooy xool ba xam ne yow am nga dara mu ñëw dajj sa kër sàcc la mais sàcc bi ngay tànn nag mooy ki lay jiite suba hmm. waaw parce que ki lay jiite suba sa avenir ak sa futur lay sàcc bu fekkee ni il n'est pas droit bu fekkee il n'est pas sain ak sa avenir lay sàcc hmm. léegi nag naka la ñuy def hmm. bu fekkee ni ñun dañoo war a liggéey parce que Sëñ Tuubaa dafa am dafa ne nit ki jullit ñetti rapport la am islam communauté monde l'islam sa digganteeg sa borom lislaam ngeen sëkk yàlla sekku leen leen lu dul l'islam sa communauté communauté bi ci nga juddoo ñoo def ci yow ba nga mat amal nga leen bor un signe de reconnaissance ti dois servir la communauté le monde tu es un citoyen du monde da nga war a liggéey pour le bien bien-être universel loolu ngay demee ci dimension mondialisation universalité l'islam boobu ñu ko jàngalee ñaata yàgg na mais tubaab bi dañuy jàpp di ñu rey fii ay universalité di ñu dóor bis bu nekk bu def bëccëg cordon ombilical bi contre la France bu ñu ko daggul duñ ci génn loolu de dëgg la parce que am nañ tout ce qu'il faut pour génn ci. franchement dañu gëmul suñu bopp gëmuñu suñu bopp ba pare ñu jàpp ñu di ñu mën a bloqué ci benn ignorance boo xamante ni yaa ngi occupé télé yi occupé rajo yi occupé média yi di wax suba ak ngoon te li ñuy wax dara amu ci. ba pare du ñu suñu xoolal li ñu solee nu mu rafetee. du ñu consommé local xam naa yaa may xool naan kii mu ngi doog a sol mu ngi doomu consommé local tey donc bu ñu defoon comme Chine tëju. xam nga gëm suñu bopp di lekk mais franchement. sax sori na Rwanda ngi nii. à deux pas. Éthiopie. non Rwanda xam nga tudd Rwanda sa da ngay ruus parce que man 94 dem naa Rwanda ci biir guerre bi. yaa ngi dégg ma gis tey ni ñu men noonu te ñun ñu ngi nekk si gannaaw. bëgg di ñuy dégg-dégg suñu kilifa yi yenn saa di wax waxu Rwanda ma ne mais franchement on est en retard. on devait avoir honte xoolal benn exemple bu ndaw laa lay jox pour ñu tëj. Hmm. sur le développement xam nga ñu ngi inauguré Massalikul Jinaan démb. mu nekk hmm. une preuve de. Hmm. détermination bi mouridisme bilaay tu vois ak sincérité bi ak doomam mais Éthiopie inauguré nañ fa forage euh, barrage barrage boo xamante ni dafay produire ndox di produire électricité ñoom li ñu soxla ci électricité trois fois de plus la ñuy produire ba mën nañ ko jaay prix limitrophique te barrage boobu bañ koy créer peuple bi ñoom ñëw cotiser du FMI du banque mondiale amuñu culture boobu loolu laa lay wax ànnéeru bi bu fekkee ni tey jii bon man am na benn euh, kii bu ma defar am naa foofu ñu am temps parce que mhm. benn modèle de développement la mhm. maa ngi ko tuddee yoonu yokkute dama caa bëgg jàppale ma ki Macky Sall ah baabu Macky Sall na la non non te ba xam naa dafa def yoonu yokkute mais boobu léegi yokkuwuñ léegi ma jëmbagul ko indi man sama benn ah. yoonu yokkute bu ko mm-hmm. defee buñ ci waxtaanee mën na am parce que tamit dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko bokk dëgg la te nu mu tuddati ah, citoyen bu nekk mooy li kenn di doon wax waaw balaa ngay xool li dëkk bi mën a def ci yow yow xoolal loo mën a def ci dëkk bi absolument te yow yaa ngi ci yoon bi parce que ça fait depuis moi je souffre parce que moi j'ai fait toutes les foires internationales tous les pays naa li fa xew gis naa li ñuy liggéeyee te mais yooyu yëpp am nañ ko fii mais problème Sénégal mooy amuñu éducation dimbalante ak solidarité bi parce que yow xoolal euh, nga baal ma foofu parce que yow xëy na sa modestie moo tax mënoo mhm. wax yenn yi mhm. Euh, xam nga Serigne Touba ku ci wax dara rek ba pare di yar ay njabootam jël ay xale yu ndaw di leen won euh, liggéey bi ni ñuy liggéeye ñoo xamante ne ils étaient presque perdus mhm. nga jël leen teg sa moyen di leen jàngal yooyu tu es à féliciter damay autofinancé sam bopp depuis quatre vingt dix président ba muy doog a pare jamono Mamadou Diop maa fa njëkk a def euh, défilé de mode King Fat bi tey waaw xam nga ñan ñoo ma doon défilé. Mm. ñoom ñoom ñoom um, umu kii kii si Khadija si. Khadija si je connais. group boobu. Khadija si waaw. tu vois. Mm-hmm. boobu xam nga lan laa doon exposé ay xottu saako xottu leget. je m'en souviens. te mën Mamadou Diop dafa ma ne mm. crise boo amee ci dëkk bi yow la ñuy jël si man suma spécialité c'est les tissus naturels faits à la main. njaareel laa doon dem di jënd sëru séeréer yi. transformé voilà ay Sotiba yooyu amatul sax. mais jamono yooyu Sotiba mi ngi fonctionné. waaw mais amatul parce que dañ ko yàq. Ah, parce que tey jii vaccin yi ñuy sol nii yëpp nii lan moo tax ñu kii ko parce que kii benn marque bu célèbre au niveau d'Europe Desigual moo ko lancé au niveau d'Europe. te boo demee chin fekk lu boo demee ni boo demee les africains yi nekk ci diaspora bi. pour réclamer seen identité culturelle moo tax ñuy sol vax. waaw mooy identité culturelle du vax c'est les pagne tissé. absolument ak euh, ay Masaay ah. et tout ça à Nairobi ñoom dañu am seen identité culturelle dañ ko dañ ko négligé kenn ah. liggéeyu ko kenn valorisé wu ko mais ñu ngi la ci ñu ngi la ci kii ñu ngi la si encouragé te xam naa benn dina la invité waat non ku ma financé dina la invité yàlla baax na wax ko ci plateau bi de parce que fii non parce que moi je suis retourné d'Europe mm. actuellement xam nga maa ngi la koy wax ni léegi mm-hmm. j'essaie de m'autofinancer j'amène des matériels mais les taxes sont trop chères maa ngi am conteneur boo xamante ni 4 mois mi ngi. mi ngi yàlla Serigne Touba dina ci teg loxoom. ah dimbali ma ci ngir yàlla bu ko defee. te conteneur bi ma sama objectif bi ma ci amoon mooy. bu ma ko jaayee financer suma maison de production. yàlla baax na à base des tissus africains. Serigne ah, euh, Touba dina ci teg loxoom. c'est extraordinaire surtout avec la nouvelle alimentation alhamdulilah sant yàlla jërëjëf. Ndiassé Cissé euh, jëwriñ ñu koy euh, remercier moo nekkoon suñu suñu gan il fallait mm. que ñu prolonger màggal bi à notre façon. Mm. ñu koy remercier parce que aussi disponibilité dafa mujj dagg li nga xam moom la doon def à Touba ñëw fekk suñu. Euh, il a tenu à ce que. véritablement waxtaan bi yaatu dugg ci ay domaine yu yu bare. Mm-hmm. ñun ñu ne ko pour une fois dinañu. en tout cas mettre en valeur li nga xam ne moom ngay liggéey parce que wax ci wàllu diine bi baax na mais développement bi tam c'est important faaw sénégalais yi xam li nga xam ne moom ngay liggéey parce que sénégalais nekk bitim réew xam nañ ci ko mm-hmm. euh, permettre ma ko mais tey moom je me permets tout euh, Magal Touba oblige euh, xam naa ni mën ngeen ko sonal si si téléphone bi il est au 78 437 43 77 mën nañ si jokkoo ci whatsapp bi 77 07 moom numéro bi ma leen jox nii moom mooy euh, numéro bi ngeen ko mën a joindre ak euh, kenn ci. ñi ànd ak moom muy Alioune Thioune mm-hmm. yëpp ñu mën si dellusiwaat parce que nag il nous faut valoriser li nga xam ne que ni moom la ñuy def fii au niveau local en tout cas ce fut un plaisir Ndiassé mm-hmm. euh, seq waxtaan bi ak yow mm-hmm. euh, du ñàkk parce que du ñu jeexal mukk euh, seetlu naa ne heure bu ñuy terminer émission nga ubbi benn brèche brèche boobu financement bi loolu entrepreneuriat bi dina du ñàkk ñu ñu dellusiwaat si si beneen jataayu waxtaan ñu lay remercier mesdames et messieurs ngeen garder li nga xam ne que ni moom mooy Euh, suivi bi fii ak cinq minutes ñu recevoir suñu deuxième invité jëm ak moom li nga xam ne moom mooy euh, douze heures euh, cinquante cinq parce que foofu la ñuy yëkkatee jotaay bi donc avec la complicité de la régie xam naa ne tey moom puisque samedi passé Carlou D moo ñëwoon première partie bi yoon Ndiassé ñëw on est resté si benn fil continuité benn fil continu bi léegi ngeen seet bu fa Carlou D amee ngeen jox ñu bu fa Yaay Fall bi Viviane amee itam ngeen jox ñu Titi que j'aime bien itam euh, ci Makarima Akhla bu amee itam ñu. waaw ñu jox ñu jox félicitations à toi parce que pour concept bi nii. Mhm. dafa am solo parce que mhm. man bi ma ko waxee sax dama ne vraiment. benn ku bëgg a yam na day innover loolu dafa am solo daal. Mhm, waaw parce que ñu toog ñu ñëpp nii. Euh, bëgg a encourager euh, nit ñi ci kii te solu nu ko aussi. luy xaw a doy waar. yàlla na sa taxawaay yàgg fi torop. ah j'aimerais bien que les prochaines kii nañ ko élargir. def défilé de mode spectacle. lépp xaj na ci parce que damay présenter sama création sous forme de défilé spectacle incha allah donc euh, fii laa ko commencé woon man i maa njëkk pour dugal défilé dama centre culturel français mhm. d'accord bon Italie tamit euh, j'ai fait toutes les télévisions yooyu tamit war naa la jox image yooyu donc bu ko defee plateau yi mën nañ ko parce que mode lépp dafa nekk ci biir tu vois bu ko defee bon ku bëgg gis sama liggéey tamit boo defee Africa Création Ndiassé lépp euh, sur Facebook ak Instagram donc di nga gis suma liggéey quoi suma exposition yi jërëjëf merci beaucoup Ndiassé Cissé may nuyu Alioune ak euh, waa Médina ñoom xam nañu euh, seen bopp foofu léegi fu ñu ma adopté la donc euh, merci à vous waa Ngor ñu leen di remercier euh, parce que jàpp nañu ci émission bi dans un court instant notre deuxième invité la deuxième partie de votre euh, émission du samedi